rajo bi waa rajo Baak Télé ba ñoom ñoom Amadou Aïdara ñoom Mansour yëpp ña fa ne. ñoom Ahmed Aïdara ak Mansour Diop ak ne ñëpp góor ñi ak jigéen ñi ñëpp maa ngi leen di gërëm. Ahmed Aïdara léegi la fi jógee. moom mi Cheikh nga ne toog. Cheikh Sarr moom Gallo mbaxal na mi koppati kii laa koy xam ci ji waaw Cheikh Sarr mooy borom koppati mooy borom koppati moo ko seenee ci rajo bi rek xamee maa ngi maa ngi gërëm euh,